aw rabbu nee meŋ dootoo seeru xaj bu ko baw ku dee fi asal rëwagul marax bu maasee ñu naa biddiw bu leera nga nee weerit bu feqee ñu naa leeram gi ëpp na xel te xam ni jant bu fenkee kenn du yee naw ku dee fi yee maka naw kooke asal rëwagul sayaana ngi dégge ngi ab teena ngi dexe ngi te géeja ngi ëpp leenum ndox xarit xalamal teewul ku nekk fasay kem ngay mane amu tur ku am fasay kemu tur saw ŋàññi rot na asal gasal di wey te bul geesooti jal nga gas kuy gas di geesub jalam lay ngën jëndam du ko jël te jal bu rëy sax du ndam xëy bënn rekk di ndam loo rëy rëyub jal te bënnoo ndam demul dikkagul gasal te bay bala ngaa am ndam lu kenn amul sa jajj bënn sa toolit ñor nga mucc musal sëriñ bi yàlla na nu may ay jajjikat yu sawar te may nu nuy jajjloo kay jajja kay rafetal te yàlla na yokk sunuy xiiwal te yokk nu gëm te dolli nu ite may nug way ci topp ndigal te yal na fab jépp lor jox faw gaayanu moy te jox nu faw ngëneel ak mbég mu kenn amagul almul